ñi koy def mën nañoo nekk ay informaticiens yoo xam ni yu am xam-xam la ñu am doole ñoo xam ni mën nañ jàpp ne euh, outil technologie bi am nañ logiciel yu mën a permettre ñu mën a attaquer par force benn système de sécurité mais mën na nekk tamit ñoo xam ne nii ñu mel ne yow la wala ñu mel ne man nga xam te ni soxla ñu nekk ay informaticiens yu yu am doole yu yu yu yu yu xarañ mais dañuy am tuuti euh, ak ak euh, ak muus. ba ñu xam nan lañ la mën a yónnee loo xam te ni yow daf leen ni leer na ñoom bu ñu la ko yónnee yow di ko jot te boo ko jotee di ko tijji te boo ko tijjee loolu moom mooy laal sa machine te bu laalee sa machine ñoom dana tax ñu mën a utiliser yow réseau bi nga nekk te réseau boobu amaana bu dee réseau service bi ngay liggéeyee danañ mën a accéder ci yeneen machines yi nekk ci réseau yi donc bu fekkee parc informatique bi maanaam lépp lu fay solution informatique ci biir am na sécurité ba sécurité gën a wóor. sax dañ koy dénk nit dañ naan ko moom moo yore mot de passe bi voilà mais kooku bu fekkee moom daf ko utiliser soit ci téléphone wala ci ordinateur am bu defee de sorte que virus laal machine am mot de passe ba mënul dootul sécuriser seen système ndax faay bi ci moom lay jógee donc euh, euh, euh, day nekk loo xam te ni mën nañ cee am jàngat bu bari Euh, ba pare war ci mën a jëlee lu ñu mën a yee pour ni ñu mën a jëfandikoo lépp luy xarala yi ngi jëm ci lu ñu mën a aar ñun suñu bopp ñu koy jëfandikoo nga xam ne yoruñu xaalis bu ñuy denc ak société yi nga xam ne dañuy denc xaalis wala dañuy liggéey wala sax ñoom ñooy gaa yore suñu karanga muy euh, ka euh, police gendarmerie administration wala ministère yi donc lu ñu war a mën a gën a bàyyi xel bi nga xamante ni dañ ko war a mën a am ngi gën a mën a fàggu dimbali suñu bopp dimbali ñi ñuy liggéey ndool dimbali fi ñuy liggéey dimbali tamit lépp lu nga xamante ni dafa aju ci suñu wàllu karange ndax toll nañ jamono joo xamante ni lii kenn bëggul tey la nga cay def wala la ca nekk ñu fësal ko ci biti